Serigne Fallu Mbakke mas naa ñëw ci Serigne Touba xaada lahu lahu maxtaar lahu fekk muy jang xasida ak wakaana xaqan xale naa nasru moominin Serigne bi ne ko xasida gii lu mënta saafara amut siiw na loolu da nga ci dégg ni Serigne bi daana ko jàng loolu nag bëriwul ci xasida yu ñu koy wax naka noonu nooru daare ni moom it daana ko jàng